ngay may. Cambérène fu nekk Cambérène parcelle yaa ngi parcelle. jërë ngeen jëf mbokk internet mbokk mbokku amateurs yi waa parcelle ñoo ngi leen di nuy bu baax a baax di leen ziare tey nag ñoo ngi fii ci open press Guiro Seras mu war a bëre samedi fii ci arène nationale digganteem ak Ndiaye Tine Guiro Seras ah borom bawal moom lañ mën nañ ko tuddee borom bawal de ndax bawal bawal bu ñëw mu nax daan wala mu forcé daan mu war a bëre ak Ndiaye Tine Fallou Ndiaye moo ñu fi woo borom Ndiaye production ñu ñëw fii ci open press fas yéene waxtaan ak moom presse bi yëpp teew ah waajal samedi 19 incha allahu rabi Giro dañ lay nuyu dañ lay nuyu bàyyil nga nuyu waa adduna bi yëpp su ko defee sama gars yi posé la ay question nga am la nga xamante ne moom nga yóbbante sa adversaire ndax suba lay def open press bu leen ko fàttee suba lay def open press am moom Ndiaye Tine ca Colobane Giro ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax di la waaw di wax onze bila bisimilah inna waali yàlla di wax jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jaraw la ko maam Ibrahima di wax jaaraama maam Saliou Fall borom daaru Xofoor xam nga di sant waa daaru Xofoor ñëpp di sant waa daaru Xofoor xam nga di sant xam waa Dindey waa Kër Ardo xam nga waa Xuru Mbàkke waa daaru Salaam Diyooli di sant waa Warjaxal xam nga waa Saato Waali Ndofaan waa Likeem waa Mbelo Ngij waa Colongaan ñëpp rek ñi may ñaanal ñëpp ñëpp maa leen sant waa Seyaan waa Jibe Yàlla ñëpp maa leen sant bu baax di sant waa Cakalaar tamit di sant Aba naan ko combat bi sa combat la maa ngi nuyu tamit xam nga sam benn papa Pasar borom Njaroñ maa ngi koy bu baax a baax di ko nuyu xam nga di nuyu waa Joal Fadiouth nuyu waa Fadiouth ñëpp ku si mel ni Coo Munde ak sama papa Blaise xam nga ak sama papa Moustapha Ndour ñëpp xam sama yaay ñëpp maa leen di ziar waa Joal Fadiouth bàyyuma kenn xam nga maa ngi ñëpp di leen ziar di nuyu waa Parcelles nag xam nga di sant tamit suñu waa écurie bu baax a baax a baax. di sant ñi ma teewal fii nii yëpp xam nga di nuyuwaat waa koñ bi di nuyu waa koñ bi quoi di leen jégaluwaat ci dérangement bi xam waa waaw ñun dañ leen di waaw di sàkku nag ñaan si ñoom bu baax di leen wax ñu jégalaat ñu si dérangement bi bu baax a baax. Giro luñ man sama première question mooy Giro Giro sama première question mooy Giro lan moo ko dugal ci njaaytin xam-xam moo la dugal ci njaaytin wala fit bu rëy moo la dugal ci njaaytin parce que boo boo gisee ma posé la question bi moo la man aller retour ñëpp dañ ki ngay bëreel moo la man aller retour moo la moo la ëpp doole moo la dàq bëre moo la dàq xeex li la dugal ci moom loolu laa bëgg a xam. waa xam nga man mbër laa te mbër da ngay boo bëggee nekk champion da ngay bëreek ay champion man waruma lu nooy quoi xam nga man làmb bu ma jugee su may jël damay jël bi gën a metti te incha allah rabbi bu ma jugee si combat bi damay jëlaat bi gën a metti waaw man xooluma lu nooy. non man xam nga nit moom ku nekk ak sa gis-gis nit moo yor gis-gisam di xool ku nekk ak ni ngay jàngatee làmb lu waay lu waay wax rek xama am nga si plein droit wax ko xam nga man li ma concerné ba ñor ma mooy maa ngi jaaytin ñooy dugg si digg géew bi ma dara lu ma wax nee nañ moom mën moom doole moom dàq bëre que le meilleur gagne waaw waaw loolu dafa jaaxal ñu bari keroog da ngeen a jàkkaarloo face to nga ni ko que le meilleur gagne mu gëmloo ni la boo tegee sa tànk taxaw samp jaaga jàkkaarloog moom dootoo ko defati ci àdduna est-ce que ñeme ngaa taxaw jàkkaarloog Ndiaye tamit di Giro. xam nga instant bii nii maanaam presque ay jours moo des si combat bi lépp lu ma siy wax rek day mel dama ko waxaat man combat bi ba mu taxawee premier jour ba léegi li ma waxoon ma si. mooy lan incha allahu rabi bu arbitre génnee suñu diggante ma duma ko daan ko. poids bi mu yor aw ma si xel ñaar. poids bi mu yor ñu bari dañ na daf la ëpp volume volume bi doole la wala giro Seras daa am leneen lu mu bëgg wane ci làmb. man écurie Dóor Dóoraat laa nekk. si yaramu ñum Garga 2. ñum a Sob. ñum ñum Cheikh Métoro. ñum Angleterre. Pape Camberène. Lassane seen yaram laa jàngee bëri ak ñum Mbës. ay Ramdaan. man poids lourd jaaxaluma aw ma boobu. te waxatuma la nag nii nii ma nekk ak Boy Faye mun naa ma defal nii. defal nii ah, waaw. ku si mel ni tamit xam nga ay ñoom ñang baalo suñu waa écurie ñëpp talva xam nga aada bawal zarko doogi valdo xam nga di ñaanalaat tamit sama fils fils la liiru di ko wax nag affaire yi métti na trop mais ñoo ngi koy ñaanal xam nga yàlla yëkkati waat ko si jàmm bu mu ñëw nekkaat si xam nga mooy di ñaanal tamit waa Cambérène ñëpp man am na ñoo xamante ni su ma am na fu ma fa demee dañuy foog ne laa dëkk waaw parce que man mooy loolu mais maa ngi ñaanal ñëpp bool Bawol man bëreeg naa ñoom mbapat bëreeg ñoom arène awma problème boobu ñaata yoon nga fa dugg. bu dee arène moom bii mooy deuxième troisième fois. troisième fois waaw. deux fois yi loo fa def. waaw loolu gars yi xam nañ ko dama baax a jaxa njaatin nee na moom li ko métti mooy li tax njëkke woon ci moom ndax boo njëkke woon ci moom doo laal keneen bu ñu yebee boo yebee ikiri bawal rek wala mbër ya fa nekk rek moom nga njëkkeewul loolu wax ju yàqu la boo njëkkee woon doo si man doo laal keneen kenn ah. ko moom muy kan Bamba moo ko jagoo moom oh. kese moom loolu moom ci lamb ji la wax moo xam loolu moom lay concerné ñun amuñu xel ñaar si ay njaaytin wala ay tafaatin ak ay mbaytin ak xam nga ay sambatin ñun amuñu problème boobu xam nga moom xam nga daa am ngoru jël sama avance man ma am ngoru xam nga jël avance ñu xam ne ay góor lañ ku si nekk li nga wax rek nga appliqué ko parce que am nit moom lépp looy wax rek na xool xam ne xam nga day ñëw si bés yi affaire day jàll Ndiaye Tine ku bëgg guerre la jihaat arbitre sifflé adversaire am dëggal boppam ñu samp jaaga xeex-xeex bu metti ndax loolu Ndiaye Tine di wër da ko ci fekk si déggoo li ma la xanaa moom lu muy def moom la concerné man xooluma si moom ndax day xeex wala day bëre man laa ji nu mu ñëwee noonu laa koy defee comprendre nga sax non li ma bëgg a xam mooy ndax bu xeexee di nga dëggal sa bopp Lamine man du ma fi nekk naan ay dama dëgg sama bopp man amul lu may xel ñaar sama moroomu góor laa la bu ma wax wax ay waxu dëggal boobu tamit man Ndiaye Tine dama am lu may xel ñaar si moom su ma mënul dëggal sam bopp si Ndiaye Tine ma dem sàmmi. kon na waajal xeex. déggoo li ma moom wax naa ko ba combat bi taxawee ba léegi par force maag moom dañuy xeex. Eh, loolu force la dañuy xeex. loolu keroog wax naa ko sa kanam. stratégie la wala loo gëm la. waaye yow damaa nekk tey stratégie. jàkkaarloo Ndiaye Tine xeex samp jaaga. waaw Ndiaye dafa dafa mën a tëdd ci lal fees ko. Ndiaye Tine ku mu mës a xeex. waaw loolu moom la concerné. ma lu ma si wax ay nax day xeex wala xeexul. maa ngi moom daal en tout cas xam jour yi maa moom ñooy dugg si géew li ma waxoon laay waxaat que le meilleur gagne. mu soobee yàlla. jaajëf Aïcha ñëw leen yéen. ku am question. jigéen ñi démb bi laay ñëwaat. Euh, ñu gis ni promoteur bi. dafa jaalale benn message bu am solo Guiro. mu wax ni moom benn sponsor toppul ci ginnaaw lamba ji ci lim ko yaakaare mooy benn pourcentage bi si mobilisation la ko yaakaare Guiro est-ce que waajal nga loolu waaw xam nga di waxaat Fallou Ndiaye li mu doon wax noonu quoi keroog si signature bi dëgg maanaam moom xam nga moom dëgg lay wax quoi te dëgg moom kenn mënu si dindi dara li mu wax ministre bi xaw ma Yankhoba moom laay lancé message di wax maanaam ay promoteur yu mel ni Fallou Ndiaye ay ñu pëti jamaïcain ak ñeneen ak ñeneen xam nga dañ leen war a teg loxo woo leen waa waxtaan ak ñoom ci xel mu sell maanaam xam lépp loo gis si àdduna rek waxtaan moo koy def hmm. dafa war a jàppale Fallou Ndiaye loolu c'est forcé parce que xam nga champion yi ngay dégg si kaw yëpp ci loxo falu Ndiaye dañ jaar hmm. waaw ak ku ci mel ni tam ay père sëñ Modou Niang ñooñu dañ leen war a di gëstu si làmb quoi hmm, waaw wax ko ca kaw kontaan wool waa Fouta ak waa Parcelles waa xam nga di woo suñu waa dëkk ku waa di woo suñu waa dëkk waa Bundu di woo Sinthiou Ndioye xam nga waa Kidira waa Naay Giroobe wu bool ñëpp wuri madu jaaligel suñu waa dëkk ñëpp bàyyi ma fenn Sénégal oriental ñëpp maa leen di nuyu xam nga di nuyuwaat waa Kaolack ku waa waa Kaolack maa leen nuyu bu baax sama gars yi nekk foofu Passy waa Nioro xam nga waa Poos Kooto Kër Mari wa par ñëpp xam nga ñëpp rek ñi may ñaanal maa leen sant bu baax maa sant waa Warjaxal tamit waa waa Warjaxal aw ma seen fay di sant waa Saata Waali Ndofane Likeem ñëpp Diya Xayox ñëpp rek ñoo xam te ne dañ may jàppale maa leen sant bu baax a baax tamit di woo xam nga waa Daaru Bayre Baye Sall Fall xam nga maa ngi koy ziar bu baax a baax ak waa Daara ji xam nga di nuyu maam Ngunda Fall xam nga borom Kawsara maa ngi koy ziar bu baax di nuyu maam Lamp borom Bulel borom Kawsara maa ngi koy ziar ziar bu baax a baax a baax. xam nga di nuyu tamit ku si mel ni sëñ Udoot ngàcc Masamba Fall borom ngàcc maa ngi lay bu baax sëñ Daam Mbàkke sëñ Daam Mbàkke maa ngi koy ziar borom Daaru Salaam ak Gaawaan ak sëñ Siiri di sant sa soxna Umi mu sëñ Fallou maa ngi koy sant bu baax di sant waa kër gi ñëpp ñëpp rek ñi may ñaanal xaw ma seen fay waaw di sant tamit xam nga sama maam man Bambey la dëkk sama maam Bambey la juddoo maa ngi nuyu waa Bambey xam nga di nuyu waa Bambey quoi ak waa Ndindi waa Gaawaan di nuyu waa Touba Toul waa Kër Baye Ablaye Ndiour ñëpp maa leen sant bu baax ñëpp rek man fépp laa amay mbooxu waa Kaba ñëpp xam nga waa KSK maa leen di sant tamit voilà merci beaucoup